bokk nga ci ñi nga xamante ne yéen ay tàggat Lac de Guiers numéro 2. Mhm. yor nga ko musculation. maa ngi lay nuyu di bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi suivre le tv point com yëpp. Mhm. bëgg naa la. waa Lamine maa ngi lay fay di la gërëm donc du contenté am contenté bu mag bi nga ñëw fii pour laaj ma ci préparation combat bi. Mhm. donc ma pare pour tontu ci question yi. comme ni ma ko waxee rek bokk nga ci ñi koy entraîné est mës nga entraîné Lac de ndax mus naa entraîner la guerre. Hmm. non c'est la première fois. waaw ñu ngi ci entraînement yi ñu ngi ci contact yi bu baax sax nu mu la ko waxee woon rek ñu ngi contact bu baax a baax ndax yaakaar naa adversaire bu mu yor yaakaar naa ni bu dee xam mu bëre moom ëpp ñu ko xëy na nag moo ñu ëpp daraja ak fu mu toll mais yaakaar naa ne ëpp ñu xam-xam. waaw état de forme bu normal état forme bu baax. parce que durant bi ñu xamante yàggul ci combat bi lañ xamante mais mu ngi mel nii xamante nañ ay at parce que du question tagg sama bopp nag de mais man niveau bi may entraîner dafa dafa dafa dafa kawe ku dem ba mën ma topp ci niveau boobu noonu ñuy ànd di entraîner am na lu bëri lu yokk ci yow. lu gën a am solo man dafa ma neex mooy gis naa mu respecté cardio bi. Mhm. liggéey loo xam ne teg nañ ko ci xonoo bi nga xam ni je man avantage la ci man parce que am na lu ma doon soxla gis naa ko aussi. mais li ma gis ci moom noonu combat bi xam naa ne am na fu mu koy teg te am na lu mu ko jaral. no lag moom lu ma si lu ma ko gisee actuellement nii nii nii nii euh, ma amul ma amatum lu may tiit amatum lu may ragal parce que ay coach yu mat coach ñoo ko yor yu coach yoo xam ne si nii mun nga leen dégg mais boo leen gisee rek bu ñu ñëwee boo bu ñu présenté war a nga ne ah, waaw boo leen gisee rek di nga xam ne ñii am na leen yàlla may. indi nañ la Lac de Guiers numéro 2. Mhm. doon nga ko gis. waay ci télé bi. waay Lac bi nga doon gis ci télé bi. Mhm. ak Lac bi nga gis fii ban différence la am ci côté physique. bon xam nga Lac de moom laajoon nañ ma benn interview ci moom man waxoon leen ni mbër bu am entraînement bu baax la mbër boo xam ni sérieux na donc fi ma fi ma fi ma doon waxee moo des mooy côté musculation bi mais gis nga li yàlla di def bi ma koy wax daaw la woon. donc ren indi ni yàlla indi na ko sama loxo donc ñu ngi liggéey ci côté boobu li manqué woon ci Lac de Guiers donc ñu ngi ciy góorgóorlu. tey jii nii lépp lu mu mun ci Lac rek mun nañ ko ci Lac de Guiers te ñu ngi liggéey côté yëpp côté yëpp ñu ngi koy liggéey instant yi ñu ngi contact côté yëpp. Mhm. waaw fu mu yaakaar ne dafay seen nee rek ñu ngi koy fat ko yàgg nga ànd ak moom di entraîner comme ni ma ko laajee ñii rek. Mhm. ban changement nga gis ci Lac de Guiers numéro 2. waaw surtout Lac gis naa ko changement bu bari bari bari mais changement bi dama siy remercier coach Mouhamed Ali moom mu ko jël en charge boole ko ay nit ba tey jii nii bu ma àndeek moom génn ku ko xool da nga naan Lac de Guiers mu ngi si bon état de forme. te gis nañ Lac de Guiers am na lu bëri loo xamante ne avant chance moom ci combat bi am na lu mu amuloon te à travers ci ñaari coach yi man coach yi dama yàgg ak ñoom père Mohamed Ali Ndiaye dama bi dépp bi muy nekk champion du monde ma nekk xale bu ndaw di ko fréquenté di Max man maag moom léegi ñu def plus de 11 ans moo ma yar xam nga ci saal bi laa nekk. di fi entraîner di fi liggéey tamit comme moniteur en plus. Mhm. boole ko lutte bi. Mhm. waaw ñu ngi ci job bu baax moom mu ngi ci avancement bu baax te moom dina wane li mu liggéey quoi. te incha allah rabi le 4 avril sénégalais dinañ gis ni Lac mii kat athlète bu gars war war respecté la. Mhm. parce que lu gën am solo mooy amateurs yi. bëgg nañ mbër mu xam ne dangay ngay respecté combat sa engagement. mais combat bi lu ma mën a xam mooy na sénégalais xam ne daal Lac de respecté na si engagement am. jox na a jox combat bi. te am na détermination te ñun lool lañ soxla ñun bu dul dara sax ay amateur dañoo bëgg combat boo xam ne day ay choc électrique. boo fekkoon entraînement yi fii da ngay da ngay da ngay yéemu si yàlla suñu borom da yéemu yàlla suñu borom lak tëdd na fii def na fi lu ne menace na fii wàccu na def na lu ne xam nga wàcc boobu mi ngi koy wax ñu bëri yaakaar ni ay tricage la. Uh-huh. effectivement dafa am. Hmm? waa dafa am wàcc plusieurs fois di wàcc wàcc wàcc. vraiment sonn nañ ci yaram bi trop. liggéey ci liggéey boo xam ni comme ni ma la koy wax rek Mohamed Ali Ndiaye mi ngi fii maa ngi fii DJ sa à lat mi ngi benn équipe bi nekk ci yaram bi di ci veillé donc euh, amuñu dara lu ñuy laam-laamee ci état bi mu toll nii. Mhm. franchement parler way mhm. amuñu instant bi daal ban lag ngay gis. lag bu pare lag bi waaj pare. jàpp naa ni bu ñu yàlla defalee cat dinañ gis lat bu bees moom. incha allah waaw xam nga bëri Sénégal moom ku ne xam na ni bokkul ak yeneen sport yi. bi dafa xaw a spécial lépp ngi ci biir donc ñi ngi veillé ci yaram bi veillé bi nga xamante ni incha allah euh, jouru combat bi dina lépp lu mu soxla woon ci yaram bi jàpp naa ni dina ko am daal. ci combat bi jërëjëf maa ngi lay sant. plateau bi moo fi gën a nekk en forme kon dañ koy sante coach bi di ko ñaan yàlla bàyyi ñu ndax seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel. mu bàyyi kook ñun parce que contrat la ñun ak moom. ba roi des arènes bi. yow gëm nga ni mu gën a nekk ci forme Eumeu Sène. fuuf ah. téeméer junni yoon bokkuñu sax Eumeu day nappe nii état nappe dafa am ak état ku liggéey. non moom ko yoru état. non day nappe dafa wàññi poids. non la ñun ay sportif lañ day nappe maanaam waxuñu la pour waxu mbala de guerre la ñu àndal wala wax kenn la Eumeu day nappe mais boo ñu xoolee ñun état xam na ñun lu ñu yor ñoo ko moom. dañ koo liggéey entraîné ko te si kattanu yàlla la 4 avril yàggatul buñ si yeggee incha allahu rabbi Lac de Guiers dina attaqué dina ko duma dina ko daan ci kattanu yàlla. Hmm. bu dawee duma bi far force dinañ ko duma. cause bi. far force lañ koy duma daan ko. far force la loolu ci kattanu yàlla teel micro bi teel micro bi sa yaram mu ngi tàng. waaw mu ngi tàng waaw ma ne cause bi cause bi. non làmb ji moo fa dul moom loolu bi sa waay ko bëgg. waaw nga ko bëgg te nee na teg teg moom. boo waaw mais bi laa la wax ni ko suñu papa Tafa Gueye doon waxee noonu lañ koy waxee je attaque je cogne je gagne. ah. je attaque je cogne je gagne. yow ba ndagal ga la ubbi làmb de Mathiam. déggoo li ma la laa la wax. dama ne la ñaari yoon lañ laa lex moom ñaari yoon bii mooy ñetteel bi bu waat dago noonu tey jii nii damay waat ne la ëmm seen day daanu. Hmm. Mhm. kon bul waat nañ ko denc ba bés ba. incha allah waaw nañ ko denc ba bés naa la jaajëf jaajëf mais mais sa xel dal na ci moom daal ci liggéey bi. baax bu baax parce que affaire yi amul naxaate fii amul naxaate parce que fii ak koo mënti doon. ak loo mënti yor. ak tur boo mënti am boo fi ñëwee neexaluñ la da ngay mën a def li ñu bëgg munoo ko da ñuy abal saal bi. Mm-hmm. fii loolu moo fi am liggéey parce que ñun loolu lañ gëm man dama ko daan wax su toujours samay combat xaaruñu combat pour entraîner dañuy entraîner chaque jour moo tax saa yu ñëwee dañuy fekk ci niveau parce que loolu lañ gëm dafa dépasser salle de musculation fii. parce que salle de musculation day am limite. mais camp d' dafa ëmb lépp. dañuy contrôler sa lépp fii dañuy contrôler sa lépp sa comportement sa lépp la ñuy contrôler kon duñ la bàyyi centimètre parce que ñun bu ñu engagé woo ci benn affaire dañ ciy joxe lépp parce que nous sommes des professionnels xam nga voyagé nañ gis nañ lu ne amul mbër bu ñu fi préparé wul. waaw te ay borom xam-xam rek ñoo fi ne ñaari paa yi moom ku leen déggal rek am li nga bëgg. Mm-hmm. waaw sa waay engagé la joxe na lépp. noo joxe ne lépp dafa daj ay coono. côté yëpp. lépp déggoo li ma la man dama naqaree àndal ci entraînement parce que man du ma desal du ma desal man dama koy motiver di ko pousse muy daj ay coono di wocc di daj lu ne lu ma mës a daj ci saal bi rek daj na lu ko raw fi mu toll nii. ci deux mois yi. est-ce que loolu taxul mu ni nañ ko kii ku ci ne ak li ngay indi moom dafa am ay coach kee dafa am ay coach coaché nañ ko nag ci niñ ko war a coaché bis ba dina def li mu war a def waaw. ok kontaan naa ci yow. gën a bëgg char ñi jaajëf jaajëf. <laughs> combat bi nar na neex. combat bi nar na neex. nar na neex nar na métti. na ci côté ah man de sportif la damaa bëgg mbër mu pare te li ma gis nii dafa dal xel fi mu toll nii man damaa sawar su ma sañoon sa 4 avril ñëw tey donc man <laughs> dama lu métti rek laa bëgg bëgguma lu yomb. Hmm. <laughs> waaw. la la lag bi bëre ak Boy Niang ak lag bi. man différence la am ci sëy non non non gis naa ci moom vivacité parce que man xam nga ne lak moom màggoon oyof euh, suy demaan man di daw rawanteeg man kon xam nga am na lu mu bëgg ci combat bi mais nag booy préparé athlète nga nekk ak mbër muy préparé ya doo wax ay secret a wax mooy globalement daal am nañ satisfaction te am nañ yaakaar si moom mais nag yaa des détails yoo xam duñ ko wax parce que adversaire bi aussi fii ak jour combat bi mën ni hmm. mais lam noonu def ñun gis nañ ko la keneen doon def aussi gis nañ ko mais xam nañ lak ba doon bëreeg Boy Niang ak lak bii bëreeg Eumeu Sène am na changement détermination bi am na surtout motivation bi mu àndal ci combat bi. gis nga keroog bi muy def benn vidéo di nga xam ne kii am na confiance. Mhm. xale la xam na ni Eumeu moo ko mag te tey sportivement parlé on sait il a un engagement personnel bi nga xam ne ni mu ngi koy xaar te xam na ni combat bi c'est son combat loolu lañ soxla ci athlète te ñu ngi ko ciy encouragé vraiment kontaan nañ vraiment ci collaboration bi ñu liggéey ak moom aussi di ko encouragé di ko ñaan yàlla yàlla aussi mottali lépp daal. ok jaajëf. waaw jaajëf waay bi. course du la teg lu dul yoon la lay jaarale. entraînement am du ko tâtonné bokkul koo xam day xëy rek nan nan def lii wala nan def lii moom avant muy ñëw programme na lépp. Hmm. nit mënu ko dindi. kon Lac de Guiers bi ban nag ngay gis Lac bu pare. Lac bu pare pare na instant bi pare que fenn laa ko doon xamee euh, ñu dem fa may gis muy kii nii muy si grande yi Lac day joxe ba jeex day dem mu ñun ñii sax moo ñuy xëccaat ni ñëw leen ñëw leen ñëw leen kon nga xam ne kooku pare na waaw man amatuma lu ma si bu dee xeex bi pare na. bu dee musculation bi pare na bu dee lépp pare na man loolu jàpp naa ni pare na 100 pour cent. Hmm. waaw lu si des ay quelques réglages la rek. Hmm. ndaw. te mais yow sa bopp sax boo xoolee di nga xam ne lag mi am na changement. Hmm. waaw yow sa bopp. te liggéey ngeen ak moom pour jour yi mu appliqué. pare guñu ñu ngi ñu ngi dem fii ba combat bi di jeex avant combat bi tamit lépp ñu ngi si kawam. ok pare nañ ñu ngi pare nañ lépp lépp lépp lépp. ok waaw ñun nag ñun nag ñun nag ñu ngi si ginnaawam. ok fii moom ku fi ñëw rek si équipe bi nga bokk. boo xoolee fële ñu ngi fi benn boo max camp d' entraînement. Mhm. fii camp la. fii camp la. waaw fii la. ok lépp a fi nekk am na équipe yi tout si côté yëpp. matale nañ ko su côté yëpp ay coach yu mag a mag a mag a mag ñoo taxaw fii lu mel ni coach Aly Ndiaye la ma ko tuddaat mhm. ak coach mag ak doomu ndayam Dijee mhm. waaw ñoom gars yëpp si équipe bi lañ bokk ñoom alu gars yëpp ngi ci ci team bi lañ bokk waaw ñoom ñëpp si team bi lañ bokk kontaan naa ci yow waaw jaay fooy kontaan naa ভক্তরা